et donc ñetteel bi ma bëgg a wax mooy arrêté préfet bi li préfet def dafa symboliser li ñu li ñu def suñu administration léegi li des ci administration li gouverneur laa bëgg a wax sax gouverneur d'abord parce que le gouverneur de Dakar ku ma xam bu baax la maag moom ñoo bokk promotion ENAM chaque cinq heures ñoo doon footballeroo terrain ENAM xam naa ni ku baax la waaye alxasan gis nga àdduna yenn saa yi nga jël sa responsabilité ñu affecté la feneen sax moo gën nga nangu ñu associer sa tur ci njombe yu mel nii moom gouverneur Alassane Sall sama frère la je le connais xam naa nit ku baax la l'esprit noonu lañ ko doon wooye bi ñuy football l'esprit l'esprit waruñu laa wàcce ba ci lii rafetul carrière jarul yenn yi nit sa dignité ak sa diggante ak sa borom amul lu ko war a jar lu dul ay carrière Macky Sall wax na Antoine Diome wax na et cetera parce que moom ci boppam ñu signé la loolu xam na ni euh, article bi ñu wax yéen journalistes yi la jublu te pourtant yéen journalistes yéen a ngi ni di couvrir suñu conférence de presse bu meeting amee di ngeen ñëw article bi amul benn rapport avec la liberté de manifester ou de se regrouper amul dafa ne période préélectorale bi yéen waru leen couvrir propagande électorale ñoom suñu cohérent cohérent ak ñoom te yéen ñëpp dañ leen war a ñëw roñ kon moom alxasan xam na ni liñ ko signéloo te wóor na ma sax dañoo bind rek ne ko signéel mu signé xam na ni lii dëppoowul ak yoon waaye c'est à ça que notre administration et réduite et c'est triste réew mi buñ koy defaraat justice ak administration la ñuy njëkk a jublu ay réformes parce que justice bu nërmaloo ci réew rek dara desu ko lépp mun na nërmalu ci réew ba mu des justice te soo waxee rek ñu làqatu waaye les institution judiciaire nangam les les plus grands ennemis de l' institution judiciaire sont dans la magistrature loolu mooy dëgg kon arrêté gouverneur bi c' est un arrêté illégal mënul servir de base à une interdiction préfet bi li mu def tey mënul légal parce que préfet bi ñaar la wax bu njëkk mooy menace de trouble à l'ordre public te saa waxuñu nag menace de trouble à l'ordre public bi lan la de xam naa MFDC mooy ñëw ak toutes ses bases à la place de l'obélisque peut-être que sax Macky moo leen di jox kaat ñu ñëw lan mooy menace à l'ordre public ñun di semaine ba la def nañ ci manifestation dara yënguwul manifestation bu mucc ayib ñu pare ramasse Euh, mbuus yeeg yëpp defaraat place ba mu rafet nit ñi ñibbi moo tax d'ailleurs li ma wax léegi gis ngeen procureur il faut euh, il faut Yewwi Askan Wi déposer une plainte contre le procureur parce que ñu def manifestation ay une semaine coow amul dara amul nga toog ba tey ne ñu suñu manifestation boobu insurrection la woon est-ce que procureur bopp bi yuur bi normal la ñu def seen manifestation une semaine plus tard dara yëngatuwul pétard sax dégguñu ko nga jékki-jékki inventé say ay histoire ne manifestation bi insurrection la woon ana les les les les les les signes de l' insurrection kan la ñu xeexal fan la ñu dem est-ce que dañoo déloger pale est-ce que est-ce que ana ana signe insurrection loolu mu ñu jiiñ nag on va déposer on va demander à nos avocats de préparer on va déposer une plainte contre vous parce que toog yor fonction rek foog ni lu ne mën nga ko teg ci ci deru dafa yomb procureur waxul dëgg waxul dëgg xam na ni insurrection amul te nous l'interpellons personnellement parce que dafa am loo xam ne nit su koy def mun nañ ne c'est des actes et des propos détachables de sa fonction fonction procureur du lii li mu wax tey politique la bu ñu waxee loolu ba pare nag dañuy wax sénégalais yépp que suñu manifestation gannaaw ëllëg maintenir nañ ko duñ ci changer lu toll ni tarfata ay manifestation bi nañ ko duñ ci changer tarfata ay man dama ne sax est waruñu koo dem defi place de l'indépendance waaw est-ce que waruñu koo defi place de l'indépendance duñ ci changer dara dinañ def suñu manifestation parce que nag li ma bëgg incha allah bokk li ma bëgg sénégalais yi xam gis nga li ñuy xeex nii du ay poste yu ñu bëgg fii amul kenn ku fi ku fi poste député ñi fi mus ñi fi toog ñëpp daanaka presque mus nañ nekk député ministre ak yeneen ak yeneen man mii di wax ak yéen bëgguma nekk député bi ñu waxee dama leen ne woon am naa mandat bu may gérer à Ziguinchor dama bëgg a concentré wu ci loolu ñu xool nag nu ñuy préparer élection présidentielle waxtaan moo indi ba ñu convaincre ma ne dinaa dugg su ma su ma nekkoon député it damay choisir diggante la ma war a def Ziguinchor ak député parce que man gëmuma cumul de fonction kon ñun député feesul suñu bët nekk nañu député ba tey ji cinq ans nekk naa ko député ñeneen ñëpp fii Déthié nekk na ko ay Aïda Mbodj nekk na ko Habib Sy euh, Khalifa Sall et cetera kon lan mooy poste député ñun xeexuñu pour poste mais principe la ñuy xeexal mooy lii suñ ko nangulee Macky nañu xam ni c'est fini ci Sénégal nit ñu bëri dañuy woo naan ñu waay euh, moom bu leen ko topp ci loolu xam ngeen dekkale leen mbir mi et cetera looloo tax dix ans yi passé Macky Sall li def lu ko neex est-ce que mun nañu continuer accepter que Macky mooy tànn kan mooy dem élection élection législative bi ñuy dem benn ténor opposition du ci bokk est-ce que loolu xel mun na kon yéenay gis France élection législative Jean-Luc Mélenchon ma nga fa Marine Le Pen ma nga xalaatuñu élection législative France ñu ne éliminer ñu diw parce que nee nañu listam xaw ma xalaatuñu ko noo mu nee ne damay dem élection législative nga ne Ousmane Sonko du bokk xalifa Sall du bokk Karim Wade du bokk Déthié Fall du bokk Aïda Mbodj du bokk Habib Sy du bokk et cetera et cetera loolu ban façon élection législative la est-ce que loolu sénégalais yi war nañ ko mën a nangu kenn ku nekk fi nga toog sa biir salon nañu posé wu question yooyu principe yooyu lañuy ñuy xeexe muy ñaar mooy li mu def pour annuler suñu candidature te tegu ko ci yoon ñaareel bi mooy mu tegaat ci nag ne les libertés dama koy confisquer ma fàttali ni Macky 2011 dafa ne l'affrontement est inévitable ça va se jouer dans la rue j'invite le peuple sénégalais à sortir il y avait pas d'autorisation chaque jour ñi ngi woon place Obélisque il y a pas d'autorisation li may wax Macky Sall mooy ça se jouera dans la rue et moi j'appelle tous les Sénégalais à sortir dans la rue c'est tout kon mu des nag buñ ko bàyyee ba mu tere ñu ñun manifester te mu demee nu mu munti demee dina am manifestation manifestation lay bañ dina am manifestation manifestation nag bëri na forme dëkk bi yëpp dina am manifestation bu soobee yàlla